tontu moom bàyyi te man maag la ma doon waaye Serigne Touba daa yemul fenn. nga xam ne tey ñu ngi fii ci Madou Salaam waaye tey nag dañoo euh, taxawa kenn koo xam ne jëwriñ universel macha allah tey yaakaar naa gis ngeen image ci ginnaaw muy arrière plan bi muy ay saaku ceeb dañuy jox jëwriñ bi rek mu nuyoo euh, expliquer euh, mbokku taalibe yi ceeb yi nan la demee jëwriñ siyaar ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen bëggee di leen nuyu. di ñaanal soxna Aida saaliw dëgg-dëgg jëmmi Serigne Béthio mu yàgg fi loolu te wér ànd koog buntam yi soxna Batoor Saliou ak soxna Dia Saliou noo ngi santaat bu baax ci tawféex gi nu am bay leeral wala di jéem a leeral lii nga laaj mu mel ni ni nga ko waxee ab ceeb la bu ñorut mu tey di ajjuma dëppoo ak bés yi nga xam ne ci la soxna si baaxoo di jëf jëfam ju rëy ji dërële senegal mm. waaye tey ceeb bu ñorut bii saawoo saa da def léeg-léeg mu boole ko ci tey nag daa bokk ci àjjuma yooyu yi nga xam ne da koy jukki dolli ci ceeb bu ñor bi ceeb bu ñorut mm. nga xam ne ku ñu yóbbul sëb cër ci ceeb bu ñor boole ci bu ñorut mm. nga xam ne boo melee ni man boo jëfandikoo lu ñor li ba mu jeex dangay mën di sàkk ci lu ñorut li di defaral sa bopp waaw loolu daa bokk ci eh, particularité àjjuma yi tey jii di 24 juin mm-hmm. muy ci loo xam ni bëgg-bëggam la te it mu yéeneem ndax kat moom xolam bi mu yor bu sañoon ajjuma ju jot réewum Sénégal ndongoy daara yi muy daara alquraan yi kër kilifa diine yi kenn du miim jëfam ji moo tax fa fu mu ko takk tey ajjuma ja cay topp da koy weesu loolu nag daa bokk ci màndarga yi feeñ tey waaw fii jal bii ñuy gis amaana eh, bu fekkee am na image njëkk a génn xam nañ ne ëppoon na lii ndax eh, ci fajar ba tey oto yaa ngi chargé oto yi dem fu sori bi ñu yebee seen añ ak reer ndax ajjuma yi nañ xam ne añ ak la mm. bu ñu yebee seen añ ak ba noppi it yëpp nañ seen ay lim ci saaku yoo xam ni moom lañ koy gungewaale muy lu ñorut li loolu daal ci ci tontu mooy sababu jal bii ñu fi gis waaw mu mel ni lim bi ci tonit moom du jar a wax ndax day nuroog uj bu mhm. waaw uj bu mooy kaaw mooy naw jëf te sëñ bi dana koo tere mhm. waaw waaye koo gis xam ne du jëf ci ndaw mhm. soxna Aida yàlla fi yàgg lool te gis nañ comme li wax rek xam nañu jëf ndaw ma wax ko rek soxna si ajjuma bu ñëw saa yu ba jëfee ba pare ba oto yëpp rek won na loolu ginnaaw dëgmal ajjuma bi ci kanam saa su ne maanaam lu def ci jëf rek du ko naw day mel ni deful dara tey mhm. waaw waaw loolu day wane rek tànk kanam Serigne Touba yi mhm. waaw Serigne Touba dana tey tey sama tey ju ne day gàcceel sama démb mhm. xultu wa ay yaami ax jalat si giñ naa man Serigne Touba wala décrété naa man Serigne Touba ni samay tey yu ne gàcceel nañ samay démb loolu nag day fireeku koo xam ne nag wóor na la ne sa lii ñëw mooy gën a màgg sa li nga toll moo tax li nga weesu tey da nga koy da nga koy fàtte te jëf ju borom nangu kat jëf ju sunu borom nangu ki ko jëf da koy fàtte loolu sëñ Béthio sunu sëriñ moo na ko jàngal nee na sëriñ Saliou ko wax mhm. nee na ko jëf ju yàlla nangu boroom da koy fàtte loolu nag mooy màndarga it li tax soxna si di jëfe noonu saa yu jëfee euh, xam na fi mu toll tey fàtte na ko waaye it yokku tey cant gi ndax la in shakartum la azidannakum day tax bii di ñëw mhm. du fa yem xalaatu faa yem am na projet bopp mhm. bii di ñëw day man suuxal bii ñu wees wala da koy gàcceel loolu mooy mooy mooy mandarga wu ci ci ci ci laaj boobu nga laaj jërëjëf waaw jërëjëfati sëñ bi yaakaar naa jëruñuy guddal waaw nga lépp bu waxee rek xëy na dañuy dañuy juum waaye yaakaar naa li ñu bëggoon xam lépp tënk nga ko ci wax bu gàtt ma allah bu am solo mhm. di wax jërëjëf soxna Aida Saliou jërëjëfati soxna Aida Saliou dégg dégg Serigne Béthio waaw nun dañ di ay cantaakoon yaakaar sëñ Béthio mhm. jébbalu sëñ Béthio mhm. gëm ko wóolu ko doyloo ko àddina ak àllaaxira waaye kat mu teg ñu ci loxoy soxna Aida Saliou mu looloo tax booba ak léegi mhm. sunu sunu nammeel sunu cofeel sunu mbëggeel sunu bëgg Serigne Béthio dara wàññi ci daa yokk ndax nii nuy liggéeyale Serigne Béthio di ñaq di ñuqi soxna Aida moo nu ci tàggat moo tax tey jii kat jiri munu jiri munu mooy jooyuñu sëñ Béthio nammeel gi nu doon am xetuk sëñ Béthio bu nu doon xeeñ uh-huh. ñu xam ne saa yu ñëwee ci keppaaru soxna Aïda Saliou xet googu jolle waaw soxna Aïda Saliou ba léegi waaw waaw dëgg sëriñ Béthio mooy feeñ ba moo ko wax ñuy dégg mm-hmm. bu ma nee war soxna Aïda ngeen di gis loolu lu mu wax la ñëpp di dégg su ma nee war mm-hmm. soxna Aïda ngeen di gis ba mu nee war ak léegi it mm-hmm. ñu gis soxna Aïda soxna Aïda jël liggéey bi jàllax ko foo xam ni kat képp ku daan topp sëriñ Béthio su ma nee ku daan nag mooy yow mii nit yaa daan topp waaye ki nga ca doon topp moom jógu fi tey jii nag la fi gën a ne waaw bësëm bii muy jëfam ji mhm. saa su ne ñuy gis tànki kanam yi moo tax tey jii ñu xam ne dëggi dëggi jëmmi Serigne Béthio mi ngi nii di soxna Aïda Saliou yàlla na fi yàgg loolu te wér tontu moom bàyyi naa ko te man maag la ma doon waaye Serigne Touba daa yemul fenn